nga defe ni du ñu am ñu dem ba ci bunt ba defe ni dañuy dugg ñun leen day legle leen. yàlla wax na ko ci alxuraan. yàlla nee na am na ñoo xam ni atte naa leen ñu dem bay teg seen tànku ndeyjoor buntu àjjana. droite bi dugg na. waaw gauche bi di waaj ñëw ñu ne la waqifuhum innahum mas'uluun. maara dayim si. waay foofu dina mel yàlla ni taxawal. Hmm. ndax dafa am ku ñëw réclamer ci sa gannaaw ne dafa am ay àq yoo ko yoreel. Eh. يلا ولا ساني ندب يلا ووكو مدب وقفوهم واو يلا ووكو مدب وقفوهم تخاو لين واو انهم مسؤولون دنج لين ريكلامي دا فام لين لين ورا لاج كاي لين واو دا فني كاي دي لين تخاو داني دبو woote bi boo ñëwee parce que yàlla dafa wax ni saaneex waaw tooñ yi ngeen ma tooñ man yàlla. mën naa leen ko jéggal. waaw mais saa problème bi mooy yi ngeen tooñante seen biir. saa neex mi nga xam ni xamula nga toog di yàq dërëm te wóor na leen ni saa boo ko nuyu woon danaan la noo sant. man de baal naa àq ñëpp. dama ñëpp baal àq. yàlla da woo ba nga ñëw mën na loolu rek am ci réew mi mën la dañ laa réclamer sa gannaaw diw nee na da ngaa toogoon ci sa biir kër nit ñi wër la ngay yàq deram di wax ci moom loo xam ne xamoo ci moom tous pour lan déstabiliser ko pour lan yàqal ko bu ko defee saa neex bu ñooñu ñëwee réclamer réclamer waaw yàlla dana laan léegi li xew mooy baal nga ko wala baaloo ko su waaji nee baalu ma ko yàlla day coppati ci say tiyaaba di ko fay muy wàcc <laughs> muy wàcc waaw boo jeexalee nag léeg-léeg am na ño xam ni seeni tiyaaba dañ koy faye ba tiyaaba yi jeex man de bëgg ko te ñuy fayee ko jeexaguñ saa neex bu ñu réclamé waa ji waaw mu fay ay tiyaabaam ba ay tiyaabaam jeex waaw dese ay bàkkaar après ñi ko réclamé ñoom am nañ ay bàkkaar mm-hmm. yàlla day jël say tiyaaba yow comme jeex na waaw gars yi dañuy jël seen bàkkaar ñoom di la ko jox xeex bi dafa am de loolu mooy jaxal na ma nga mujj dem oustaz lakk dina am lakk ankay ah, yàlla yàllaa ko wax ci alxuraan ni àjjana amee noonu la safara amee. xam nga dañ naan am na ñoo xam ne dañ naan. yonent yàlla yàlla du tiim nit dafa bëgg nit yàlla du lakk kenn. yonent bi nee na. waaw. vérifié naa ñaar yëpp. waaw. naa ñaar yëpp. nuuru na am na. waaw safara yow nuuru yow la nuyu woo. waaw ndax ëllëg yowmal xiyaam li coow li bari bari ñaari équipe ñoo fa am. waaw fariqun fi janna wa fariqun fi sair parti bu jëm àjjana ak parti bi jëm safara. waaw parce que yàlla dafa maandu saa neex mhm. waaw nee na bu ëllëgee blanche yi ngay gis jaaykat yi di ko teg di teg banaana yi di compter. waaw yàlla nee na bu ëllëgee bu nit ki ñëwee blanche bi laay teg jël ay tiyaabaam teg ci blanche jël ay bàkkaaram teg ñu xool man de bëri saa neex yow mal xiyaam saa ngi ko sutura amu fa mbaa yëg nga di écran bi gën a mag yow mal xiyaam la nekk lu nit ki daan def ci àdduna bu yàlla pilee CD bi rek da nga koy gis. ñëpp dina gis ñëpp. Ah. keroog bi nga demee toog ci sëriñ bi génnee cent mille francs weexal ko mi ngi ci kaset bi ba nga naan sëriñ bi li ma bëgg daal liy sedd sama xol mooy ñoom ñaar nañu tàqalikoo mi ngi ci CD bi bi nga naan sëriñ bi man daal lu ma mën a am diggante bi na tas mi ngi ci CD bi. bi nga naan sëriñ bi dama bëgg ñoom ñaar kenn duutul xool sa moroom man daal balaa maa féex sama àdduna ndaw si daa dem abal ko sëy bi daal laa bëgg na tas bu tasee nag ba ma xam ni mën nga moom ma booleel ak yeneen client keroog bi nga toogee ci pantere sëriñ bi di ko wax yàlla nee na loolu mi ci téere bi dama bëgg mu perte place bii mu yor ci bureau bi ma jox la deux cent mille sëriñ bi bind xaatim jox la ne la xëpp ko ci buntu bureau wala teg ko fa muy romb na ko jéggi wala fexeel ba dugal ko ci otoom wala wis ko fu muy jaar yàlla nee na yu ñaaw yooyu ba nga koy def mu ngi ci téere bi mu ngi ci seede bi li nga doon def lépp keroog bi nga feram soow ba bi ngay génn àdduna yàlla nee na loo fi def rek takk naa ko <laughs> sàcc bu dul raw jerte te yàqi nelaw borom nee na damay seetaan rek bari na looy def yaakaar ni yàllaa ci yàlla nee na sàcc bu dul raw jar te nelaw te képp ku dem ci seetkat mu seetal la wax la nga gëm yonent bi nee na loo jaamu ci yàlla ñeen fukki guddi yàlla du ko nangu bu tombeek weeru koor danga xiif meew amoo koor yàlla ni li ngay def lépp bàyyi ko xel parce que loo ci mën a def mi ngi ci téere bi mbaa yëg nga ni doomu jàmbur ji nga yàq ba kenn mënatu koo xool ci dëkk bi nga yàq répitation am foo toog deram du fa rafet mi ngi ci téere bi damay bàyyi nag ba ëllëg ba ñëpp dekki ma ni la kaay nga ñëw ma jël téere bi ne la am iqra kitabaka kafa bin nafsika alyawma alayka hasiba yalla ne la setiri. sa téré lepp loo ci gis rek jappal ne ya ko def nga ubbi téré bi nak commencé lire le 2 janvier la demone ci serigne ba tok ci pantereem ne ko tassal ma digënté bi yalla ne ya nga gis nga ne ko waw mu ne nga nga ni waw mu ne xam nga ni say ñawtif ñu upp ci téré bi nga ni wallaay yàlla wax nga dëgg mu ne malaaka yi xudu jël leen ko moom muy taxaw fa xulluuhu ngeen yóbbu ko fu ngeen ko yóbbu summal jaxiima sallu jël leen sawara wuñ naan jaxiim te nag bu mu ànd ak wax bu mu ànd ak bërwi jël leen ko saa bërweeg waxam ju bari ji yóbbu safara yàlla koy wax waa safara di qiila qsha'u fiiha wala tukallimuun eh dugal leen gaa yi biir safara te bu mu ànd ak coow ndax gaa yi dem safara buñ ñu demee ba buntu safara dañuy xuloo xuloo bu métti dugg doo njëkk dugg sa waay jiitu ma coow li ne kur buntu safara yàlla ne malaaka mi alu mu ne alu mu ne ko ñooñu di coow ñan la mu ne ko xanaa ñi war dugg ci biir safara bi te lay tax nit def dem safara yàlla cité na ko ci alxuraan. jëf yi nga xam ni ku ci dee te bawoo ko dem safara yàlla da ko cité mu tax ëllëg lay du am yàlla nee na bu ëllëgee yéen waa safara damay def ak yéen conférence de presse mooy ay question laa leen di poser première question bi mooy dama naan leen alam yatikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yawmikum haza waaw yéen ndax yónni ma woon yonent ci yéen ñu ne waaw yonent ba nu mu tudd Seydina Muhammad daawu leen wax li ma santaane ah kay lu tax defoo leen ko woon bilaay yàlla xam nga rek seeka xam nga parce que c'est-à-dire bi yonent bi demee amuloon ay nitu yàlla yu ñëwoon gannaawam ahankay amuloon ay sëriñ yu daan jàngale diine amoo leen woon alaaji Maalik nga sëñ Tuubaa ak Seydina Limaam kay bi ñooñu demee amul ñeneen ñu ñëw amul woon ay boroom xam-xam ca senegal amul woon ku ñuy wax Moustapha Guèye amul woon Oustaz Aline Sall amul woon Makhtar Seck yàlla ñoo ñëpp daan nañ leen seetaan waaye dañ daan jàpp rek xool ne tele neexul nañ jàpp ca yëngutu ga yàlla ni waaw kay xiilaq sha u fiha wala tukallimun ma wax la ko tey nga xam ko gis nga àdduna bii boo fi nekkee te jaamu woo yàlla dangay ngay perte <laughs> jaamu yàllaay dëgg de sëriñ tuubaa nee na laa tashtari dunya bi uxra yaa man baa nuuran bi dujaa fa sa yëndëmu sëriñ tuubaa nee na gis nga sa leer gii boo ko jëndee lëndëm te mooy ne ci àdduna war a topp yàlla toppoo yàlla nan dama wiiru ci oustaz Modou Fall bu yi mu yóbbu ma sëñ baa nee na da perte de man baa a nuuran du jaa fa sa yandemu jaamu yàllaay dëgg waaw jaamu yàlla mooy dëgg du la wàcc mukk ba keroog ngay sangoo suuf waabut rabbaka xatta yatiyaka al yaqin jaamul yàlla ba keroog ngay fekk yàlla ndax bisa ngi ñëw da ngay njegenaayoo sa loxo nday joor sëyu jàmbur bi lii nga ciy wax te wóoru la ëllëg yàlla dala koy laaj lii nga feeñal te nekkul ci sa biir xol yàlla dala koy laaj ëllëg ànd bi ñuy ànd jayante bi bu nu wéetee ku nekk nekk ci sa deru moroom yàlla dañu koy laaj ëllëg loo xam ne nag boo dajeeg yàlla mu laaj la ko loo cay def nga koo xam fexeel ba nekk nit ku dëggu fexeel ba nekk koo xam ne looy wax jiital ci sa tëraayu bàmmeel kula ni man na laa garanti ëllëg dalay nax bammel wét na te kune ne fay wet ak say jëf kon lo fa liggeyul do ko fa fek jaamul yalla bayil xel borom bi de gaa ngi de bayiko xel te nak la yati illa bartatan buy ñew ci mbettel lay ñew fu ko kenn wul lay ñewé kon bayiko xel kenn la garanti ci kanamu yalla nak lu dul say jëf jëw gi nga nekké bayiko soxor gi nga nekké bayiko yàq der gi nga nekke di wax loo xam ni bu ku la tegaloon kaamil nga doo sañ a waat ni lii dëgg la bàyyi ko déegaa ngi ñëw alal ji ngay jël di dem ci sëriñ di yàq sëyu jàmbur yéeg ku ne ci liggéeyukaay nga fexe ba ñu dàq ko liggéeyukaayam nen yi ngay jël di placé ci buntu jàmbur yi saafara yi ngay sotti ci palaasu jàmbur yi bàyyil xel yàlla mi ngi lay gis de te lu mu yàgg-yàgg danga dajeek moom te boo dajeeg moom da récc rëccu noo doon ñëwee ci àdduna yàlla yi léegi mi ngi fii booy soxoree nit day xëy di ko gën a dolli sa xol bi nag mooy dem ba yàqu du tax nga am li nga bëgg ba pare sa dund day naqari da ngay perte doo baax baaxle fële doo baaxle fii kon soo bëggee mucc laabalal sa xol bu dara fees sa bët gëmal yàlla yàlla dong ngay gëm am dund gu teey boo ko defee da ngay noppalu jëlal sa bopp jox ko yàlla ku am ku ne yàllaa la jox ku ñàkk yàllaa la xañ lu nit am yéene ko ko bu dee taar yéene ko ko bu dee daraja yéene ko ko bu dee xam-xam yéene ko ko bu dee alal yéene ko ko bu dee succès yéene ko ko lu nit am lu mu doon yàlla la soob mu may ko ko heure boo nee nag du fi amee du yàgg moom de <laughs> yàlla nga attaqué guerre dee ngi ñëw de bàyyi ko xel qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum thumma ila rabbikum turjaun qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والله خبير بما تعملون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور